salaamaaleykum mbokki suñu Sunugal 24 di leen nuyuwaat bu baax a baax a ni ngeen ko bëggee rek lañ koy defee ak yéen ndax seen mbégte du suñu bànneex ba tax na lépp luy information dañ leen koy indil chaque jour mbokki internet yi comme niñ koy waxee bu dara xewee rek dañ leen koy daal di indil tey nag ki nga xamante ne bii moom moo di Samba bu ñu delloo kuy Samba mooy ki nga xamante ne bii moo doon def TikTok boobee nga xamante ne bii doon wax rang rang mu ñu tuddee ko sambaka Ka rang rang ba defoon na fi sax moom. moom benn buzz boo xamante bi tey euh, sénégalais yi euh, lu ci mel ne sociaux yi jëloon nañ ko euh, ci li nga xamante ni moom moo di ay interview ak nga xamante ne bi moom moo di ca Linguère moom Samba Ka waxoon na ni internautes yi sax am na sax benn site boo xamante ne bi jotoon na ko jiiñ ne ko am na caméraman bu fa nekkoon bu mu nekkee dakaar fii moom moo ko doon a nax moom Samba Ka moom nag dañ doon ñëw ak ci benn résumé pour ngeen xam kan mooy Samba Ka bu ñëwee nag ci li nga xamante ni moom ma xew moom Samba Ka nee nañ dafa def benn cambriolage fële ca euh, fi nga xamante ne moom moo di Linguère waaye nag cambriolage boobu dañ ne moom mi nga xamante ne moom moo di Samba moom moo ko jiite woon moom ak gàngooram daal di dugg ci benn place daal di fay cambriolé la fa nekk mbokki internet yi di leen wax rek ne leen que ni moom Samba Ka moomee tey euh, police teg na ko loxo fi mu toll nii nag euh, coow la ki nga xamante Ka xanaa rek di leen wax ne moom Samba Ka euh, police teg na ko loxo xanaa rek di xaar fan la wànnante di mu jekki gëtëm ñu indi leen yeneen information yi nga xamante ne bi moom lañ fi am mu gën a leer waaye daal li ci mënta fës daal li ci mënta am mooy que ne moom mi nga xam ne moom moo di Samba doon na def cambriolage fële ca euh, Linguère ñu daal di koy jàpp fi waaye nag mbokki internet lu ci mënta am daal comme ni lañ ko waxee dinañ leen indi renseignement yu leer naan jërë ngeen jëf mbokki Sunugal 24 point net